muy dee ca xare ba ngir teral barab yàlla war dana am adduna lépp ay nit suñ borom di leen yebal ñuy yeesal yoon wi di ko yeesal ba ñëw ci xarnu ku lëndëm boo xam nit ñi danañ jàng waaye duñ jëfe lañ jàng danañ xam waaye lañ xam duñ ko jëfe wala ñëpp ko jëfe duñ ko jëfe ngir jëm yàlla suñ borom feeñal jaamam ba mu tànn ca ësal def ci moom ak njubam def ci moom ak leeram def ko muy buntum njëggal def ko muy buntum yërmaande di mawlana xaadima rasul sallallahu alayhi wa sallam radiallahu taala anhu mu feeñal ko ci jamono boo xam ne ñi ñu gënoon a xam ci réew mi di leen tudde ay sëriñ tur wa moo fa nekkoon waaye kenn koo ca xam ni da ngay daan jël nit ñi di leen teg ci njub di leen teg ci dëgg di leen teg ci siraatal mustaqim amutoon xam ni da nga daan yar nit ñi ci di leen ci di leen yar liñ jàng ko jëfe ci jëmm yàlla rek tax loolu néewoon na ci réew mi jafewoon na baax ci loolu sëriñ bi ñëw yoon wa xamante ni fa la rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam mu teg ko fa bi nga xam ne mi ngi ci Mbàkke Kajoor la njëkk Mbàkke Kajoor fekk na suñu borom waajal ko ci ësal nam waajale gaayam yu baax yépp ni mu ko waxale boppam suñ borom wuy na ma njëkk muy bind aadama diiru juróom-ñaar fukki junni ci at muy doon bind aadama loolu su ko faqe rek déggee dana ko jaaxal lool day wax ni loolu nan la mën waaye suñu boroom bi bindee roox toog na diir boo xam ne moom rekk xam lim ba doolu bind jëmm gis nga nun ñuy toog bi ñu feeñee ci kaw suuf yàggul waaye suñuy ruu suñ boroom ko bindal ci alsibi rabbikum booba ku ci suñ boroom tànnoon ngay aji texe bu sa ruu feeñee ci sa jëmm yi da ngay doon aji texe di jëf-jëfi aji texe ku mu jëmale ca deret weti wala iyaasu billaah waaye dafa fekk ne moom suñu borom daf ko amal diir bu yàgg door amal jëmm mu bokk ci jëmm yi nga xam ne suñu borom daf leen a tànn def ci ñoom taw fii xam ba nga xam ni képp koo xam ne yaa ngi ci seen ron mën na nga wax ne da nga bëgg lépp adduna ak àllaaxira am nga ndax ñoom seen yitte yépp ci lu ak ci sore mooy xet li nit ki xet nit ki nag li ci njëkk mooy yara ko yaru lislaam muy tarbiya ruuxiya fexe ba nit ki li ñuy wax taqalli mu mën ko am nga defal ko li ñuy wax taxalli ba nga xamante ni tëjët yi dana mën a am muy nit nga far nga far ci moom yëpp melawu sëñ borom bi subhaanahu wa gën a mut lu demee ni ki lu demee ni ki añaan lu demee ni ki nëw lu demee ni ki ngistal lu demee ni ki wax lu dëgg lu demee ni ki jëf bëgg ñu di ko tudd wala nga jëf lu baax génn di ko nettali yooyu yëpp danañ ko wékk ci yow ba mu set wicc defal la li ñuy wax taxallii taxallii mooy safaan lu yooyu ñuy wax nga nekk nit ku woyof ak lu la yàlla mën a defal la su ne taar la du tax nga gis sa bopp mukk ndax dana la wóor ne taar yàlla def ci dimbale ko ne lii loo fekk la te lu mel ni gis tam danga ko sori ndax xam ne yàlla rek mooy ki leen kumpa suñ borom rek mooy ki mat a xel ndax li kii gis tam dafa yëngu rek waaye booy def te yàlla rek tax nit ñi danañ xam ni yow mii lii ngay def yàlla rek tax da nga yàlla dana ko gis nit ñi daañu ko gis waaye booy jëf ngir nit ñi nit ñi daañu gis waaye suñu borom subhanahu wa taala moom du ko mën a gis mukk nga xam ne dafa bokk ci jëmm ñi nga xam ne ñu taxoon moom keroog bi nga xamante ni woote na ne képp koo xam ne jàng kese moo la fi indi woon ñi ko man ci réew mi pare na waaye koo xam ne dafa bëgg di jàng boole ci li nga jàng nga di ko jëfee ni nga xamante ni noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yore saxaaba yi nga xam ne bépp kàddu suñu borom bu mas a wàcc ci yonent bi saxaaba yi wax mu leen ko joxee fa saase lan la dina ci ñoom ndax dañ koy daal jëfe su dee ñu jàng ni ci kuddi rafet la dañ cay daal di bu dee loo xamante day tere lay dañuy daal teet loola fa saase la koy daal tàmbali di dund nga xamante ni ñoom alquran waxuma la mokkal ko ci seenu xel wattu ko ci seenu dënd waaye dañ koy wattu ci seen cër nga xamante ni lépp lu alquran di digle seen cër daf koy jëf lépp lu muy tere seen cër daf koy wattali ko fa saasa ndax noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yare woon bi nga xamante ni mi nga wax ak waa daara bi yar boobu la doon jekkal yar boobu yi la doon indiwaat ndax li gënoon a bari ci réew mi nit ñi suñu ñeen di jàngal da ngay jàngal rek nga am xam-xam waaye dafay mel ni soo fa jógee da ngay gis sa bopp da ngay wéy da ngay jàpp li ñu xamul daanaka duñ ay nit nga gis booba li xewal ñi nga xamante ni nga wattu woon alquran boo seetloo dafa am ay mandarga yoo xamante ni moom lañ daan def ngir ñu xam ni kii fii ki fi jaar ko wattu alquran la nga xam ni moom dana yar nit ba wattu alxuraan wattu xeeti xam-xam yëpp tarbiya ko ba xolam sa bicc ba yéege ko ci yàlla te kooku boo ko gisee da ngay defee ni kii moom xamul dara yëgul xamul dara ci wàllu diine xamul dara ci wàllu njàng mu sori wala ci wilaaya wala dara ndax daf leen di yaram ci lu mooy di def ci ñoom dutuñu ko mën cee gis suñu borom subhanahu wa rek moom la ñu mën a gis moo tax bi nga xamante ni tàmbali na yoon wi ci Mbàkke Kajoor ñëw fii ci Mbàkke Bawol nga xam ne mooy dëkkub josaanam ndax maam Maharam Mbàkke di maamam moo ko sant waaye dëkk fi woon doomam la fi dëkkaloon ak taawam am na wax Ahmadou Falmata am nañu wax Ibrahima Agnane nga xam ne mbokk yëpp feneen mu ñu bisi fi waaye booba yi tëgg mbokk yi nga xam ne ñoo la nekkal jàng lañu borom xam-xam lañu waaye sëriñ bi nii muy dunde xam-xam ñi mu yar yoon yi mu leen jaarale dafa mel ni yoon la war xam ne ñoom lu yees la ci ñoom ba tax na booba ak ñàkk digg ci ci li muy jàngale dal na nit ci moom ba tax ñàkk diggante boobu yi nar a indi ay jafe-jafe tax mu jóge foofu sanc Daaru Salaam ci penku Mbakke ba ni mu fi jógee ñëw Daaru Alimul Xabiir bi nga xamante ne ñëw la Tuuba dëkk fi juróom-ñaari at ci la yeggee ci xalwaam bi suyu boobu yi ci jàkkee Daaru Xudoos ji mu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak saxaaba yi ci am na moom daraja jum doon wut te daraja loolu yëgg bu ca tax mu ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yéegale ko ci daraja loolu yi yonent bi yeggale ko xamal ko daraja bi liiru suñu borom di jaay la gi lii la mu xamal ko rek bu ko sama bakkan attanee rek attan naa ko feeg yaram waa ngi fi moo ngi nekk fi rek natt buñ ma mën di teg attan naa ko fii la ko yalla dogal mu jóge fi sanc ci baye bay ca jolof fofa diir bu gatt na fa dekk fofa la xeye di wuy di ndar fekk yoonu wowe moy sabab genn biti bis bo boobu mo sabab bis bi ni magal tay ñu war ko magal ci anam go xamne jaamu yalla tay buntu bi yërmandeem tey njëggalam ak xamna bu mu feeñal bokk ci bunti njëkk njëggal sunu borom ak bunti yërmande yi muy feeñal ci jamono ngir di xet li jamono bis bii ci la amee woon li mu lépp lim doon ñaan yàlla lépp muy martaba boobu ci bis bi ci la ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci la ko amee moo tax mu digle woon képp koo xam ne yàlla dogal na nga aju ci man bis bi fu mu dikkee nga di ma ci sant la yàlla ci jàng alxuraan ak xasiida ak tudd yàlla ak berne foo waaye man di nekk nga di ko fa def woote gi fii nag ñu di fi daje ci biir Touba mi ngi tàmbali ci jamono Cheikh Mouhamadul Fadal mooy ki woote ngir taalibe yi di daje Touba ñi gëj a gis a mën a gise ñu xamantewul mën a xamante man a saamantewaat sëriñ si mën a dénkante taalibe yi ba bu ñu delloo seeni pas-pas ak seeni nit gën a kawe ci suñu borom subhaanahu wa kon gis la boo xam ne lépp lu ci ab jaam fas suñ borom subhanahu wa taala mën na ko ko defal muy bisub njëggal di bisub yërmande ndax suñ borom dafa bind ay bis bi bisi njëggal la di bis si yërmande ni mu ko defee ci weeru koor ni mu ko defee ci guddik laylatul xalam noonu la ko defee ca ay jëmm yoo xam ne ay boo doxee ba daje ñoom suñ borom mën na laa defal taw féexi nga am njëggal bu xaw kon bis bi bis la bu ma a fonk waaye li ci gën a mat a fàttaliku nag mooy li ko taxoon a jóg moom Serigne Touba te lu bare bare bare léegi mel na ni loola fàtte nañu ko muy gindi nit ñi te leen ci dëgg ak njub ak ci siraatal mustaqim nga xam ne te ñi ñu sonne kenn ku ci nekk loo am defe ni sëriñ bi bëgg na ko nga baax ne ko toppatoo nga ko indil ko sëriñ bi ñaman ay gàtt def nañ gàtt ñaman gëléem def nañ ko ñaman nag def nañ ko ñaman xar def nañ ko ñaman bëy def nañ ko ñaman ganaar def nañ ko lépp lu nit am ñaman ceeb ñaman suukar ñaman ndox kenn ku ci nekk lam man te yàlla tax def na ko ngir jëm bis bi loolu nag moo tax su loolu amee ñu dajal fi bernde am kenn ko ci nekk nga ñu bernde la ba sa xol sedd war nañoo nag fàttali ko ne nit ñaare ko séq muy roox ak jëmm roo ni mu soxlaa lekk ak naan ak nelaw ak yi ci aju roo dafa am lu koy dundal yaram dafa am lu koy dundal roox am lu koy dundal mooy tudd yàlla ak di ko fàttaliku ak di fàttaliku ëllëg te di ko bàyyi xel muy loo xam ne képp koo xam ne suñ borom dogal na yaa ngi yewwu ci biir dëkk bi te ngay tudd di tudd sëriñ bi mbooleem ku xëy si ci yow balay dellu war naa yóbbaale ak yóbbale te loolu lu bari ci noonu fàttaloo la la ñuy yittewoo mooy lañu nit ñi indil ñu fab ko seet nu ñu ko mën nu ñu ko mën a jariñoo waaye nan la def ba jëriñ nit ki ba lim yëkkati joxe ko te alal sox ci xol ñu mën koo wuutalal lu feesaat dellu xolam ci yàlla loolu mooy li nga xamante ni mooy sunu warugar ñun ñëpp. loolu moo sabab jataay bii ñu di ko def di dénkanteeg yéen dëgg di dénkanteeg yéen it ak njub kenn ku nekk ci ñun xam la ko war mooy ñu bàyyi xel yàlla mi nu bind te moom te melal nu fas ne ci ndigalam ca teet ay tereem xam ni Sëriñ Tuubaa loolu moo doon bëgg-bëggam li nekkoon bëgg-bëggam mooy képp koo xamante ni yaa ngi aju ci moom ndax bu ñee aju sëriñ bi rek nit ki day ku xelam gàtt sax da defe ni day loo xamante ni benn kuréel la ndaw waaye sëriñ bi ni nga xamante ni noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawoon ci lislaam mooy taxawaayam rahmatan lil alamin nitu yàlla rahmatan lil alamina moom lay nekk ci mbindeef yi ndax gis gi yërmande la dégg kàddoom mu jëfe ko yërmande la dund moom yërmande la léppam rek yërmande la kon la nga war a def ci bi mooy dénkaane yi nga xam ne mi ngi ko daan dénkaane ñu di ko bàyyi xel bu baax la mu daan dénkaane bokk na ca képp ku bëgg mucc tey ak ëllëg na nga ko ci li yàlla yónni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy sunna muy nangoo jaamu yàlla te teg ko ci sunna rasulillahi sallallahu alayhi wa bokk na ci lim daan dénkaane képp koo xam ne bëgg ngaa mucc tëj ak ëllëg na ngay wattandiku ak tooñ te boo mënee jéggale ak tooñ yëpp nga di ko def nga xam ne njàngale moom yi tey dem nañ ba mu mel ni ñu bari ci njaboot gi fàtte nañ ko ñu ngi dundal leneen ñu ngi woote leneen loo xamante ni bukk tëg moom sëriñ bi ni mu daan dunde ak ni mu daan doxe ak ni mu bëgg ku ko dunde ak ni mu bëgg ku ko doxe loolu wax ni man talaba al-wusula lil jalil falyaxtasim sunnata rasuli képp koo xam ni bëgg naa egg ci boromam na nga jàpp ci sunnas rasulillahi sallallahu alayhi wa